ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën ko xam ci sëñ Amdi Fall euh, moom sëñ Mouhamadou Fall Mbenda Mbenda Jaxu Nay ba Sala Penda mi des ci Ngaraaf arɗo ngo ma fan wawi pelbaga mboɓen mbuɗu benda fall jambari carriére wawi muɗu benda fall eh, sey noon duñure di ñaanal si ñam di fall muɗu benda yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér yeneen ki bis bu tedd bii nga xamante ni fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall eh, mi ngi koy amal at mu ne ki njiital eh, sunu baay Serigne Mandiaye Ndiaye Serigne Modou Diouf Xelkom Serigne Demba sëriñ ma Massamba Seck ak sunu kilifa gi toog Baye Jibi Diouf waaye ci njiital Euh, borom Ndar Fall ñi ngi ñaan yàlla sunu borom euh, yàggal ko ci kanamu euh, daayira bii nga xamante ni mooy fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall Touba Côte d'Ivoire ñu feggoog Serigne Demba Faye mi nga xamante ni mooy porte parole daayira bi dañ koy jox mu présenté mbooloo mi ba ci kanam incha allah rabbi jërë ngeen jëf. bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu àq di leen baal àq di ñaanal sëriñ Serigne Mountakha mu yàgg fi te yàggal fi seriñ am di Mbenda ak njabootuk sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar mboolem kilifa yi nga xam ne ni ñoo nekk ci jataay bi buñ ci jiitalee sëriñ Jili Fall moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar mi nga xam ne ni tey jii moo jiite liggéey bi nga xaye moom la waa Côte liggéey fas yéene ko jébbal xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall am Amdi Modou Mbenda yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér waaye fekk fi ay bokkam yu baax yi nga xam ne nii dañoo ànd ak ñoom liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bi di sëriñ moodu sëriñ Cheikh Modou Mbenda di doom ci sëriñ Cheikh Mbacke ñu ngi koy siyaar bu baax waaye di siyaar sëriñ Ndam Fall mi nga xam ne nii moom dafa ci sëriñ bi ñoo ngi koy siyaar bu baax kon mën nañoo ne ñooñu rek war nañoo mën a représenter liggéey bi nga xam ne nii ñoom la waa moom la waa Côte di liggéey. fas yéene ko jébbale jëbbal xalifa bi ndax ñu takkook Côte d'Ivoire lan ñu am kóllëre lan te it ñoo xam ne nii bàyyee nañ xel suñu réew ma waaye ànd ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lan àndal di Baye Jibi Diouf mën nañoo ne Baye bi Diouf maam moom maam Cheikh Ibrahima Fall ndax kenn la ci ñun koo xam ne nii ab liggéeyam la taqalewu ko fenn fépp fa xay fu ñuy liggéey la sëriñ bi rek boo ko gëstoo di nga ko fa gis muy sunu baay yàgg ak ñun lool ànd nag mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon doon liggéeyal Cheikh Ibra Fall di Alaaji Modou Penn Serigne Moustapha Mbaye ak Baye Aliou Sile mi nga xam ne dafa nekk fii ci njaareem léegi waaye ànd ak jëwriñ ji nga xam ne nii mooy jëwriñu Serigne Modou Moustapha Fall cee Côte d'Ivoire di Serigne Bàcc Seck ak Serigne Massamba Seck mi nga xam ne nii moo yor talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall ji ànd ak Serigne Moustapha mbay moom Cheikh Sadio mbay mi nga xam ne nii tey jii mën nañoo ne mboolem loo xam ne nii luy leeral yoon wi la ci waxtaan ci wàllu gëstu mi ngi ñu koy defal ci fédération de Baye Fall ñu ngi ko ciy sant bu baax ànd ak Serigne Massamba Thiam mi nga xam tey jii daayira Touba Treichville moo fay jëwriñ ja di ko sant bu baax a baax ci liggéeyam ànd koog Serigne Mamadou Diaw ma nekk Sénégal waaye ànd ki nga xam ne nii mooy jëwriñu soxna jaara fii ca Côte nekkal leen fi di soxna bëgguma faal moom mi ngi fi teew teewal fi soxna yi yëpp maye bone ndax yàlla def na loo xam ne nii ci ñoom mboolem soxna yi nekk Côte d'Ivoire tey jii kenn képp bu fi teewee mel na ni ñëpp la fa teewal kon ci gàttal ñi leen xamal ne jëwriñ yi nga xamee ñoom ñoo ŋànk liggéey bi muy Serigne mbay Ndaw mi nga xamee moom Serigne Abdoulaye Ndaw moom bay Cheikh Ndaw mi ngi ci liggéey bi Serigne Mouhamadou xel xelkom mi nga xam ne nii tey jii gannaaw bin amee ndigal ci Serigne Modou Aminata Fall def fédération de Baye Fall dajale mboolem liggéey yi nga xam ne nii moom la ñuy liggéey di war takk ko muy wenn say jébbal ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall muy Serigne Mouhamadou Diouf Xelkom moom it mi ngi fi ak Serigne Amdi Fall mi nga xaye moo doon jëwriñu Touba Adjamé kon ci gàttal mboolem di communes yi nga xaye ñoo nekk Abidjan di liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall tey jii seeni représentant ngi fi ndax jenn jëmm rek bu jóge woon Côte d'Ivoire tey jii mel na ni waa Côte d'Ivoire yëpp a teew liggéey bi nag doon na loo xam ne ni kenn ku ci nekk tey jii war nga cee yee sa bopp ndax jotaay bi ñu toog day ak ki nga xamee moom la ñuy siyaar si tey jii mboolem loo xam ne nii kàddu yi maam Cheikh Ibrahima Fall jiboon na. tey jii war nañ cee am lenn loo xam ne nii luñ ciy defal njàngat la mooy ñàll yu bari yi nga xam ne nii waxoon na ko waaye nag bu boobaa na ngeen aw ci wa ci digg wa wa ci digg wa mooy dem leen ci ki ma fi nekkal ngeen am dem ngeen ànd dem ci ki fi neel Sëñ Tuubaa ki ma fi nekkal bu ko matewut bàyyi leen ko fi dem ci ki fi neel Sëñ Tuubaa waaye dafa wëlbatiku ne man Seex Ibra Faal mi fu ma toog ku fa toog boo xamut ma xamal la boo amut ma amal la kon nan jàpp ni kii ñu fi fekk si Cheikh Ibra Fall mu sotti la dara manqué ci moom kon maa ngi gën a soññ mbooleem taalibe yi nga xam ne nii dañoo bëgg a liggéeyal Cheikh rek te jàpp ne fi ñu jaar aw yoon la te diw ñàll nan wëlbatiku jaar ci wu ci digg wi mooy fédération de Baye Fall bi nga xam ne nii moom la Serigne Modou Aminata Fall jeex woon ndigal li Serigne Cheikh jëmb yeesal ko ñu ñëw ci Serigne Amdi Modou Mbenda keroog bi mu toogee wax nañ ne addiya yi nga xam ne moo jóge Côte d'Ivoire moo njëkk ci addiya yi nga xam ne nii mooy addiya yi daayira ñu teg ko ci loxoom. kon loolu rek ab soññ la ñu ngi ciy gën a soññ bokki taalibe yi yëpp mboolem sous région yi nga xam ne nii ñoo nekk Côte d'Ivoire muy Yamoussoukro Dalwa Gagnoa San Pedro mboolem fa xëy dañ fay liggéey sëñ Tuubaa war nañu am ci njàngat ne war nañ faa xëyal Cheikh Ibrahima Fall di ko fa gontal ndax sëñ Tuubaa képp ko xëy xëyal nga ko war nga ko war ngaa gontal maam Cheikh Ibrahima Fall kon loolu mooy soññi bi nga xam ne nii ñu ngi koy soññi ci turu sunu jëwrin Serigne Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne nii tey moo yor fédération de bay Fall santoon ñu ko ngir ñu jottali ko ngir jëmmi Serigne bi kàddu yi nag doon na kàddu yoo xam ne ni du sunuy kàddu kaddu yooyu jóge ci jëwriñu fédération de Baye Fall la jëm ci bokki taalibe di sàkku mboolem koo xam ne nii rek. yaakaar nga Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall am pas-pasu liggéeyal ko ñu ànd ci fédération bi di yëkkatandoo di tegandoo lépp lu liggéey teg ko ci loxob Serigne bi mu tegal ñu ko Serigne bam mu tegoon ci loxob Serigne bi te loolu rek moo ñu fiy jëriñ fii moo ñuy jëriñ ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di siyaar bu baax it jëwrinu borom Mbawar Fall ji nga xam ne nii mooy Serigne Papa borom Mbawar di nekkal fa Serigne Cheikh Fall Mbawar fee ca Côte kon ci gàttal daal. mbooleem kun tudd sa tur na nga xam ne matutug doomu aadama waaye mbooleem njabootug Cheikh Ibra Fall gi nga xëye ñoo nekk Côte d'Ivoire tey jii ñoo ñëw fas yéene jébbal liggéey bi nga xam ne nii moom la noonu liggéeyale Cheikh Ibrahima Fall di ko jox xalifa bi am Amdi Modou Mbenda yàlla na ko fi yàlla yàggal ti wér ci barki maam Cheikh Ibra Fall salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, Baye Demba Faye euh, mi nga xamante ni mooy porte parole euh, liggéey bi kaddu yi am na solo lool ndax maam Cheikh Ibrahima Fall daan wax naan jàpp leen ci liggéey sëñ Bamba bi ku si jàpp mu dem ku si jàppul mu dem jàpp leen ci mu mel ni yéen a koy doxal ngeen de sag bi kon ñi ngi ñaan fédération maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla sunu borom eh, yàggal ko fii Serigne Demba di daanelee rek la ki nga xamante ni mooy kilifa gi eh, Serigne Modou Diouf xelkom eh, di jàmbaar yi Serigne Dame Saliou Serigne Dame Sassa Mbodj ñi ngi ñaan ci barke maam Kumba Bale yàlla suñu borom yokku la di siyaare Baye Fall seen waaye dañuy siyaare suñu jàmbaar ji ci biir muy Sëñ di Fall Modou Mbenda di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi ndax sànq bi may tàmbali nee naa Mbenda jaxu nay ba sara penda mi nda singaraaf arɗo maga ma fan wawi pelbaga mboɓen foof bayim defal xam na ko dani mbudu mbenda fall jambari carrière wawi mbudu mbenda fall sey noon duñu ree ku ne xam na ni sëñ Moudou Mbenda mi nga xamante ni mooy meññi sëñ Amdi Moudou Mbenda naaru maam Khady Niang ku ne xam na ni 1904 la gane ca Tassinère Gandiol bàyyi ko fi bi mu fi bàyyi ko ku ne xam ne nii sëñ Cheikh Modou Mbenda jàmbaar ja liggéey na fi liggéey bu am solo ku ne xam ne nii sëñ Talla Modou Mbenda borom bayre ba borom xorom sa borom wilaaya ja borom sañ-sañ ba liggéey na fi liggéey bu am solo ku dem Côte d'Ivoire suñu bàyyi xam nañ liggéey ba mu fa def fi ñuy wàcc suñu cadre rek foofu lay accès ñi ngi ñaan yàlla suñu borom euh, yokk ko kon bu ko defee dañuy jébbal kàddu gi euh, Serigne Modou xel Xelkom incha allahu rabbi mbooloo mi Serigne Jili Fall moom sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar moo lay nuyu bu baax a baax di nuyu njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi teew yëpp buñ tuddee sëriñ Cheikh Modou rek mu yóbbaale ñëpp ak mbokki taalibe yëpp nee na dañuy dem ba ñëw rek doog a àggali kàddu yi ci des nee na dañuy leeral mbooloo mi liñ joxoon sëñ Ousmane Niang muy deux million cinq cent cinquante indi na ko yombul nag ndax ñu jox la alal joo xamante ni alalu mbooloo mépp dénk la ko nga saytu ko ba mu mat indi ko jébbale ko ba mu mat yombul ci am ñangeen moom ñangeen bu ma jaaxal la kon dañuy ànd rek ak sunu kilifa sëñ Modou Diouf Xelkom ak mbokki taalibe yëpp rek ñu dem jébbal ko sëñam di Fall Modou Mbenda te sàkku si moom ñaan. te jiital ci ci ñaan gi mu yàgg fi na ñëpp wax sëñ Amdi Fall Modou Mbenda yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér mooy sunub sag mooy sunu njariñ buñ noppee nag ñu dajalewaat fii waxtaane lañ bëgg a waxtaane ndax ñoo waroon a xaar sëñ bi sëñ baa ngi xaar kon amatul li ñuy wax daay sëñ Touba sëñ Touba ba ci Abidjan waaw waaw waaw daayira Aljami ba moo ko jiite moo topp sëñ ma Gumba Thiam sëñ Demba Faye waaw moom mooy mooy porte parole daayira maam Cheikh Raye Fall ba ci Côte d'Ivoire sëñ Demba Faye waaw waaw Demba Faye waaw Demba Faye waaw Faye nee na Faye jërëjëf waaw waaw Diop waaw waaw waaw moom moom moom fa la nekkoon ak murid yi ànd ju waa tegal loxo rek waa baax na waa jërëjëf jërëjëf Sarr waaw ndeysaan waaw seen suñ Pape Sène moo fa jëwriñ suñu Cheikh Fall Mbawar waaw moo fa jëwriñ suñu Cheikh Fall Mbawar waaw waaw mooy suñ Ousmane Niang xam naa am ñi la seeb moo yoon addi ji waaye daa ne moom daa mel ne jum na moom moom dara man dara ci la moom waaye moom daal moo leen ko dénkoon xanaa <laughs> si mi ñaan ko rek mu gën a mu a jub te am xéewal rek <laughs> waaw jërëjëf <laughs> jërëjëf ñang Gajaga Gajaga waaw jërëjëf waaw hmm? waaw waaw si sëñ Cheikh Modou Fall. jërëjëf waaw sëñ sëñ Mor Fall mooy Touba ca kanam waaw waaw jërëjëf waaw. sëñ Moustapha Mbaye sëriñ sëñ sa sëñ Sadio waaw mooy Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire la nekk waaw waaw jërëjëf. sëñ Modou mi la. waa baax na waaw jërëjëf waaw waaw waaw waaw sëñ sëñ bi kat xam naa waa waa Touba ñoo ñëw de siyaar si. mu ne waa ñëw di la siyaar si. Euh, di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi tawet lool. nee na di la ñaanal it nga lool te ànd ak wér. moom lañ ciy jiital. mu moom lañ ciy jiital. ndax mooy seen njariñ. ndax mooy seen njariñ. xam nañ bu fi sëñ bi yàggee rek. xam nañu ne boo fi yàggee rek. lañ bëgg dana am. nu bëgg ñoom dina am. da cee jiital ca siyaar bi. nee na waaw di ji sëriñ Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne moom moo la fa nekkal. nee na sëriñ Mandiaye Ndiaye ma nga xam ne moo la nekkal Côte d'Ivoire. ànd ko ak mbokki taalibe yëpp. ànd ko ak yëpp. te sëriñ Modou Diouf mii. ci njiitu sëriñ Modou nekkoon fa ak ñoom. nekkoon fa ak ñoom. ba muy demit mu jox liggéey ba moom. ba muy demit mu jël liggéey ba jox leen. sëriñ Modou Diouf mi di woon jàmbaar lool. mu nekkoon jàmbaar waaye ba mu demee kam fa bàyyit ba mu demee waaye kam fa bàyyi. di jàmbaar lool moom it. mu ne moom jàmbaar la lool. ndax suñu blaat dafa waxoon ne. ndax Cheikh Abdoulaye dafa waxoon ne bu téeméeri gaynde bu téeméeri xar àndoon bu téeméeri benn gaynde jiite leen benn gaynde jiite ñëpp gaynde lañu doon ñëpp gaynde lañu waaye bu téeméeri gaynde àndoon it bu téeméeri gaynde àndoon mennum xar jiite leen mennum xar jiite leen ñëpp xar lañu doon ñëpp waaye ñoom it am nañu bëgg waaye ñoom mu ne am nañu bëgg am nañu yéene am nañu yéene waaye sëñ Abdou Khadre dafa wax ne jàmbaar amul ku ñu dimbalee am waaye sëñ Abdou Khadre dafa waxoon ne jàmbaar ñu dimbale rek ñu bëgg sëñ bi dimbali leen ñu bëgg sëñ na nañu wér ba nu man nañu ñu am nan am xol yi moom Cheikh Rafa la ci ne nee na xol moom Cheikh Ibra rek. bëgg gi it am na ba noppi. bëgg it it am na ba wér gi ak amee rek. wér gi ak man gi bu amee rek. li sëñ bëgg dana am. li sëriñ bëgg dina ñu bëggoon sëñ Demba Faye mii. ñu bëggoon sëriñ Demba Faye mooy porte-parole ba. moo fa nekk di porte-parole bi. Euh, mu mu mu jot mu jottali kàddu yu mbooloo mi. mu jottali kàddu yu mi. sëñ Modou Diouf mi tëj ko. sëriñ Modou Diouf mi ko. addee ji nag mu ngi nii. mu ne addee ji ngi nii. ñaari million la. ñaari million la. ak téeméeri junni. ak téeméeri junni. ak fukk. ak fukk. ñu xeeb ko lool. nee na ñu waaye nee ko sëriñ bi fulal rek. waaye nag na leen ko sëriñ bi fulal mën na ko. mën na ko su ko defee rek mu am. ko defee rek mu am ba seen yéene àgg. ba seen yéene mën a àgg sëriñ bi dong yaa ngi lay siyaara ci turu waa Côte gi yëpp gannaaw bu ñaanalee sa sang bu tedd bi sëriñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér yàggal la fi ci sunu kanam ak njabootu. Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp ñu ngi jottali kàddu yi nga xam ne nii moo jógee ci sunu jëwriñ ma Mandiaye Ndiaye ànd koog bokki taalibe yi ak jëwriñam ji nga xam ne da jiitu ci liggéey bi ñu nekkoon foofa mu nekk nekk bu sell ba Serigne Ndam Fall yittewoo ko ne ko dellusul ci tool yi dama laa soxla fii teg ko ci loxoom muy Serigne Mat juuf mii ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ànd nañu ñoom ci liggéey bi. di ci jiital sëriñ Baara Faal mi nga xam ne nii tey jii mën na ne jataayub sëriñ Muntaqa la fi tooge ci Côte d'Ivoire ndax moo topp ci sëriñ Magumba Thiam mi nekk représentant sëriñ mun Muntaqa ci Côte ñu ànd ànd bu rafet muy jëwriñu Touba Adjamé it liggéey bi nag ñu di la seereel ne mboolem ñi nga xam ne nii sopp nañ Cheikh Ibrahima Fall sax bu ma yeboone seeni at yi ñoo ci ëpp kon sa maam képp ko xam jóg nga aw ci yoon di nga ko liggéeyal li ñuy wax nag ca kàddoom ga ñàll yu bari yi nga xam ne nii waxoon na ko dafa mel ni dafa bari lool faal waaye ñii de ca wa ci digg walan aw te fa leen diggaloon wa ci digg woon nag mooy ki nga xam ne nii moo fi nekkal moo ko fi nekkal muy sa jëmm ju tedd jii ñoom lan am pas-pasu li ko liggéeyal di ko jox seen addiye te dina ñaanal nga yàgg fi lool te wér la ca des nag ña ca des faal bëgguñoo dem bàyyi leen ndax lépp njaboot gi la buñ sañoon nga ñaanal ñu ba ñëpp gindandiku ànd takkandoo doonu say di la liggéeyal nga di ko sëriñ bi ndax sëriñ Modou Aminata Fall de liggéey bu njëkk ba ànd nañu ak moom mu nañu ban toogee mu nañu toog leen moo wax leen fi ñu koy yóbbu ba ban toogee ba noppi dafa dajale a nga xam moo nekk ci barabu maam Cheikh Ibrahima Fall ba booleeg àddi yi ko jox ànd ak jëwriñ ya fa nekkoon dem yut ko sëriñ te jëf jooje ba léegi moom moo continuer kon bu ñu sañoon mbooleem goo xam yaakaar nga Cheikh Ibra Fall wala nga sopp ko te ñàll wa ca digg wa yoon wa ca digg ba ti ngay jaar mooy fii ñu jëm si ci sa jëmm ju tedd ji kon loolu ñoo ngi koy sàkku ci yow bu baax di sàkku sa kàddu ak say ndigal yoo bu nu demee mboolem li nga xam mooy territoire du Côte fépp fu ñuy liggéey la Serigne Touba war nañ faa gontali maam Cheikh kon ñu ngi ñaan ci sag màggaay ak sa tedd sa tedd nga bu nu demee sa jëmm ji ñu xoole ñu ko bu nu waxee ñu jàpp ñu say kàddu bu ko nu digal nga liggéeyal ci Cheikh Ibrahima Fall nga jëfe ko gannaaw lool it ñi ngi jottali cantuk maam soxna yi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk ci liggéeyu Cheikh Ibrahima bii ndax am na fu ñu ko jëlee te it fii ñu ko indi bir nañu ne moom yoon wu jëm ca kanam la kon ñi ngi sàkku nga ñaanal leen ci bu baax a baax a baax ndax am na ñu bëgg ngir jëmmi Cheikh Ibra loolu it sa maam ji dong la ndax kenn ku ci nekk am nga foo jokk waaye dañoo dajale doonu mbooloo takku say def daayirab Cheikh Ibrahima Fall ba ren jii def nañ bis boo xam ne nii doonte sax amagun ci Sénégal waaye ñi ngi ko ciy sàkku muy bis boo xam ne bisub Cheikh Ibra Fall la di ko waajale liggéeyub sëriñ bi ba saa fu jëf jotatee ñu mën a indi alal ju takku loolu ñu ngi koy sàkku ci yow gannaaw loolu it jëwriñ yi nga xam ne nii ñëw jëruñu Côte d'Ivoire yi de ñu ngi lay seeral ne am na fu ñu teg maam Cheikh Ibrahima Fall mbooleem liggéey bu ñuy liggéeyal Serigne Touba duñ ko tàmbali mukk te tàmbalee woon ko ci sa màggoog maam ju baax ja ba ci kuréel bi nga xamee mooy xidmatul xadim ren jii de am na kër goo xamee dañ koo fas yéenee tabax ndax liggéey ba ca Grand Bassam ñoom ñoo ko liggéey ci ndigalal sëriñ bi liggéey ba ca Touba yëpp gon ñoom ñoo ko liggéey ci ndigalal sëriñ bu ubbi jumaa ji waaye dañoo sàkku woon ren jii ñu fas yéene tabax kër Sëñ Tuubaa ci Tuubaa abooba gannaaw ban ko defee ba nuppi ba dajale comme ma xaye mooy comme mu njëkk ma jëwriñ yaa xaye mooy jëwriñu Tuubaa abooba di Sëriñ Mouhamadou caam day liggéey boobu day teguma ci lox teguma ko ci loxo loxob kenn ku ci loxob maam Cheikh Ibra Fall kon loole it sañu caa jëf lenn wala cee wax lenn te yëgalun la ko ba nga jox ñu ci ndigal ndax Cheikh Ibra kat képp koo xam ne nii xam nga ko lépp luñ koy liggéeyal da nga ca taxaw di ca xëy di ca gont ñun nag Fall amuñu lenn wut Cheikh Ibra Fall te buñ sañoon luñ songu lu ne daan ko kon dañoo bëgg nga dimbale ñu gemmuñu ba lépp loo xam ne ndigal la lu jóge ci kër Serigne Touba bu wàccee ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñu am ca ndam ndax loolu rek mooy cosaanu yoon wi soxna yi it li ñuy sàkku mooy liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall bii yemalewuñ kook lenn te bu nu sañoon danañ ci gisugu yokkute ña fa nekk nag. ñenn ñi ay jaaykatu ceeb lan ñenn ñi ay commerçant lan góor ñi ñenn ñi ay tailleur lan ñi ci des di biisi ci kenn ku ci nekk saa foo xëyee yaxantu di bëgg loo yot sëriñ bi yóbbu sa kër te dëkk ba doy na waar lool waaye nag sëriñ bi moom jeexalu dara kon fii nga xam ne fi la ñuy roote fii la taalibe yi ñëw tàllal la say loxo te di la ñaanal suñu borom guddal sa fan te wëral say cër te jëf yi nga xam ne indi nañ ko fi ñu yàgg ko fi indi yàgg ko fee fekk te loo songati ci liggéeyub sëriñ bi amee ko ni ñu ko bëgg fàll salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jottali sunu nuyoo jëmale ci yow di ko jottalil waa Côte d'Ivoire gépp Mandiaye mi nga xam ne moom lañ teg liggéey bi ci loxoom sàgganewu ko téye na ko li nu naajeel it sa dëkk maam bee di maam Saliou Fall faloon jaaroon dox dox dox dox dox doxin wi ñu dox si fii ndax ni ñu ko liggéey ji jëm ci kër Cheikh Ibra noonu lañ ko liggéey li jëm ci kër maam Saliou Fall fa lañ jaaroon doon joxe addi yi sëñ Saliou Fall doon ko jox sëñ Assane moomee loolu bokk nañu xëj na li gën a naajal jataay bi ah di ab taalib bi nag baaxuwut sax di ndib liggéeyam di téye sëñ bi ci waxtaan waaye li nuy sàkku ku nu dimbale rek gën a yokk pas-pas bi ak pësteef yi ak xéwal yi ndax daaw waxoon naa ko fi ne nun indi nañ ko fi indeeti ko fi waaye kër gii nu ko indi tey muy kër Cheikh Ibra Fall ñu indil ko sëñ Modou saa loolu dafa doy sëkk ab liggéey noonu daal noo ngi ñaan Fall nga yàgg fi te wér te yàgg lu ko indil te jëf ju ñëw gën a kafe jëf ju ñu indi woon ndax kat keroog man koy tàmbali xeebu woon na lool coow li bëri woon na lool waaye lépp nee na deng fi mu gune gu ndaw gi gën a tuuti ci jataay bi tey mën naa yore liggéey ba. ki gën a tuuti ci ñun rek mën naa yore liggéey bi tey tey ku ne bëgg na jàpp ne yaay jëwriñ ci tey kon nag loolu liggéey bu nu nangul la nangul googu nu ko nangul nag ah, du kenn ku dul yéen faal kon nag noo ngi lay ñaan nga yàgg fi te wér toogaay bi yàgg na te wërunu toogaay bii nu toog di wax bu yàgg na te wërunu kon nag nag foofu la ñuy gàttal waxtaan wi nga ñaanal nu rek nu teewi kay diwéni diwén te rafetu fekkin faal yéen waa Touba Côte jërë jëf yéen waa Abidjan gépp njobootuk sëriñ Touba njobootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne bi mu ngi leen sant bu baax ndax ci jataay bii tey da a teew ci kër Cheikh Ibrahima Fall waaye dañ cee gis njobootuk sëriñ Touba gépp ñu doon it ay jëwriñ gëmit sëriñ Touba bokk ci kër yi doon fa ay jëwriñ te sopp Cheikh Ibra ak gëm ko moo waral ñu dagg seeni jataay ànd ak Baye Fall yi ñëw indi àddiyee Cheikh Ibra Fall ji kan ñoo ngi santaat bu baax sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax di leen nit gërëmit bu baax a baax xanaa ku xamut seenu doxin waaye ku xam seenu doxin ku ne dana xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Abidjan ay jàmbaar ngeen ndax man mii toog di wax ak yéen 90 laa njëkk a ñëw Abidjan boobu affaire boignee fa nekk alaaji Modou Pène it laa fa fekkan mu jiite Baye Fall yi ma di fa ñëw it fekk fa Diouf xel ko mii mu jiitewaat Baye Fall yëpp ma dellu fa di ñëwaat it fekkaat it ngeen defaat fédération gën a takkuwaat yokkaat seen ab liggéey àndandoo lépp doon benn tey ngeen teew ci kër kanamu sëriñ di Modou Mbenda ànd ak Jili Fall mii di doom ci sëriñ bi di sunu rakk mu jiite leen ak sëriñ Cheikh mii nga xam ne nii muy Cheikh moodu Serigne Cheikh Mbacke Fall képp kuy ñëw Abidjan te daan fa teew ci te doon doomi kilifa da nga xam cër ba nga xam ne nii moom la aman muy ànd ak it nga xam ne nii yàlla dafa def démb ak tey ma nga fa te lam lam nekkan mosu cee deltu ginnaaw njaboot gi nag xam nañ leen képp kuy nattable yoonu murit da ngaa génnut waaye boo génnee danga xam ne murit yii kat am na lu sëriñ Touba def ci ñoom waaye nag kuy toppandoo jëf ku ne ci Cheikh Ibra Fall nga koy roye kan xam nañ loolu wér nañu xam nañ ko bu baax a baax a baax muy ajame googee muy Treichville muy Yopougon muy Aboba lépp xam nañ ko bu baax xam nañu doxinu murid fa mu toll ak fan ko yeggale ak fan ko jëme kan sëriñ bi sant na leen bu wér mu ngi leen di ñaanalit bu baax a baax yàlla sama borom yokk seenu fan yokkit seen jëf ndax jëf ji kat wér na biral ngeen ko fii waaye fekk na wér na bu baax a baax a baax a baax ndax sëriñ Touba dafa demee noo xam ne képp ku ko liggéeyal mu fay la képp kuy liggéey di joxe saw ñaq ci Cheikh Ibra Fall ko gisee kan la sëriñ Touba bindoon ne Touba li abdil muridin saadaxin lahuma bi xidmatin aw bi hubin aw hadiyaati kan àjjana ñeex nañu lépp kiy liggéey ci dooleem kiy joxe àddiyaam ak ki nga ki nga xam ne nii moo am coppam soppam te yàlla rek tax kan sëriñ bi sant na leen sant goo xam ne am na tàmbali waaye amut ab yem sëriñ jili gis nañ taxawaay bi bu baax lii rek moom la sa maam xàlle yoon wi muy Cheikh Ibrahima Fall muy sëriñ Ablaye Fall Ndar muy sëriñ Moodu Ablaye sa waajur muy sëriñ am Amdi mii toog nga xam ne moo moo moo moo yilif yoon wi tey kan nii rek la day am daa doon yoon woo xam ne seen maam da koo xàll ba mu set boo ci jaaree te jàddoo taxas du la du la du la teqatal dégg du la jam muy yoonu kër Cheikh Rafal wii kan yàlla na leen yàlla jàppale su fekkal leen seenu fan yéen yi nga xam ne nii yàlla daa defit ngeen doon ay taalibe doon ay murit suñ borom defit ngeen gëm Cheikh Ibra bëggu ko te yàlla tax mu demee ci kaw jëmm ji nga xam ne doon nañ waxtaan ca mbaar ma muy sëtëb sëñ Cheikh ma sàmba Jaara Mbay sëñ Moustapha sëñ Moustapha Mbay kan dégg nañ wax waxtaan wi dañu bëggit nga jógaat tuuti ndax xëy na am na loo xam ne sëriñ bi déggagu ko wala xamagu ko wala gisagu ko te ñun teewe nañ jataay yooyu xam nañ ko nga yëkkatiwaat sa kàddu ci wolofalu ma sàmba jaara mbay sëriñ bi déggu ko ba noppi mu doog ko defaat ñaan du guddal nag dañu bëgg rek ñu xam fa ngeen fa ngeen jëm ak fi ngeen dale ak fa ngeen jëm ak fa ngeen ko jëmee jërë ngeen jëf waaw mbir mi day dafa yàgg ndax maam Samba Diarra sa maam Cheikh Sadio moo ñëw jëbbuli ci sëriñ Tubaa ma nga jébbaloo ci Serigne Touba fa kër maam As fa Ndar waaw fa la fa la jébbaloo ba nga xamante ne seeni maanaam euh, jébbalu na daal di fekk si Serigne Touba nag euh, Mbakke Kajoor bi mu ñëwee Mbakke Kajoor fa tabaarakallaahu euh, ba mu ñëw nag mu daal di indaale maam Samba Diarra maam Samba Diarra ak maam Cheikh Sadio yi ñoo bokk ndey ak bàyyi bi mu bi nu ñëwee bi mu koy jébbal Serigne Touba. booba ci kanamu maam Cheikh Rayma Fall la maam Cheikh Rayma Fall mi ngi toog maam Cheikh Sadio yi daal di jàpp ci loxo maam Samba Diarra daal di ni eh, maam Cheikh Ibra Samba Samba mi sama rakk noo bokk ndey ak dama ko bëgg a jébbal Serigne Touba waaw. maam Cheikh Rayma Fall ne ko loolu léegi boo ko defee yàlla dee ci bëgg Rasulullah dee ci bëgg te it dana fi jëlee ak ak ak defaru bi nu bi nu ñëwee eh, fa tabaarakallaahu mu daal di koy jëbbal maam Samba Diarra. ci kanamu euh, maam Cheikh Ibra maam Samba Diarra nag di xool di xool maam Cheikh ra rek di ko xool di ko xool ba yàgg maam maam Cheikh Ibra daal di woo maam Samba Diarra ne ko yow de ndongali da nga may xool rek mu ne ko waaw dama la bëgg dama laa gis rek bëgg la lool waaw maam Cheikh Ibra ne ko baax na daan la jàppale daan la jàppale bi mu ñëwee nag maam euh, maam Samba Diarra ku rafet mbind la Sëriñ Tuubaa nag joxoon ko ay xasida daal di ko yebal ndar ne ko nag demal ndar nga di ko bind maanaam di ko wane. bi maam Samba Diarra ñëwee na ci marché bi di bind mbindum sëriñ bi daal di koy euh, euh, weer ci naaj wi di ko di ko wawal fekk booba euh, maam Cheikh Ibra mi ngi ndar jikk ba yàgg mu daal di yebal ab taalibeem ni ko day mbindum sëriñ Touba dafa may xeeñ waaw ci marché bi demal nga war a lima ko yëkkati ab lim jox ko bi ndaw li ñëwee daal di fekk maam saamba Diarra ñu ko mën day Cheikh Ibrahima yónni mu ne ko Cheikh Ibrahima moom Serigne Touba mu ne ko waaw mu ne ko day daf ma ni mbindum Serigne Touba mi ngi may xeeñ ci marché bi maam Samba jaar ne ko ah, lii de ci Serigne bi la bàyyi ko Serigne ma jox ndigalal ma ñëw fii ci Ndar di ko fi bind di ko di ko uh, wawal. léegi ndaw la daal li maam Samba Diarra bindan lépp ndaw la ndaw la da ko da ko daal di jënd daal di ko yóbbu bi mu ñëwaatee nag la ko maam Samba Diarra ne ko léegi nag ñëwoon dem nga wan ma Cheikh Ibra tey moom dañuy ànd ma yow. bi nu ñëwee bi nu euh, ni ma ko nitilee nee noonu bi nu ñëwee noo ngi fekk maam Cheikh Ibrahima mu yor mu yor ab këll bu ndaw def ci am am soow ak ab suusal ak suukar bi mu dikkee loolu la ko ganalee ba ñu noppee nag ca la maam Samba Dia jóg ni ko nag la kël wilaayatu bay na naa si zahiratan sa wulli yoo njëkk siw yaram bi nam Fall waaw nee na ko mbooleem lakkañeel na la al wilaayatu ak ak wilaaya bay na naa si sa diggante ak nit ñi zahiratan zahiratan ci ci lu feeñ ndax sa walliyoo njëkk a siiw yaa njëkk a nekk walliyu ñu ko tey it nag yaa njëkk a siiw xat foxte haaruna fii juudin wa fii këramin ñu ko nag sa sa ko sa sa tur wi dem na ba Cham yaaram bi naam faal diggante Makka ak Madina ak Cham foo ne maam Cheikh bi ñu la ko yartu may liggéey sëñ Tubaa waaw liggéey sëñ Tubaa saxoo saxoo kalimatu laa ilaaha illallah booba léegi nag maam Cheikh Ibra Euh, euh, euh, dal di jàppale la mu ko waxan ni ko ni nag danaa la jàppale waaw jàppale maam Samba Diarra dënn bi bax baxi moom nga dégg maam Moussa Ka naan ndar la ko doomi jaara may leeral na boppam jaara tey waykat wa Cheikh Samba Diarra mbay moo tax dënn bi bax baxi waaw kon nun danoo am ab cër ci maam Cheikh Ibra moo tax fi mu nekk nii amuñu ki sago Fall fédération maam Cheikh Ibra Fall bi nekk Côte d'Ivoire bépp maanaam ci ci biir panel bi waxtaanu ma mii maa ko di ñaan yàlla ak yonent ba jëmmi Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Modou Moustapha Fall nga yàgg fii. jërëjëf sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. maa ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. maa ngi leen di ñaanal. ngi leen di ñaanal. liggéey bi ngeen liggéey. liggéey bi ngeen liggéey. agsi nee na agsi na. ndax liggéey boo ko dee liggéey. ndax liggéey boo ko dee liggéey. di te di ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa. di ko jébbal Cheikh Ibra Fall. di ko jébbal Cheikh war ngaa sant yàlla. nee na war ngaa sant yàlla bu baax. ndax sant yàlla kat. ndax sant yàlla kat. dafa war ab jaam. dafa war ab jaam. ab jaam bu ne. nee na ab jaam bu ne. war naa ñaan ci boppam. war naa ñaan ci boppam. lépp lu lu ko nar a dogalee. lépp loo xam ne nar na koo dogalee. yàqal ko liggéey. loolu yàlla na ko fi yàlla jële yàlla na ko fi yàlla jële sëñ fi mu toog nag nee na fii mu toog nag sëñ Tuubaa laa fi toogal sëriñ Tuubaa rek la fi toogal ak Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Ibra Fall li ma sëñ Tuubaa di liggéeyaloon. li ko sëñ Tuubaa di liggéeyaloon nag. bala maa def dara. bala moo def dara. ba liggéey bi yeggee. daf koo liggéey ba liggéey bi yegg. man doo door a jëm ci boppam dara. mun door a ci boppam dara. Cheikh Rafaal. nee na maam Cheikh Rafaal it. moo jox liggéey moo moo moo ko jox liggéey bi. liggéey boobu nag. nee na liggéey bi mu ko jox nag it. maa ngi ko liggéey bu mu yegg. nee na ma ngi ko fas yéene liggéey ba mu yegg. bu yeggee nag. nee na bu yeggee nag. sañ naa maa joxe addiya. sañ naa jox addiya. addiya yi nag. addiya yi tamit. moom taalibe yëpp noo ko woo. moom taalibe yëpp noo ko bokk. ku adde yi nag. adde yi tamit. ci kanam lañ koy dajale. ci kanam lañ koy dajale. bu ñu ko dajalee. bu ñu ko dajalee. jébal ko sëñ sëñ ba noppi. jébal ko sëriñ Tuubaa ba noppi. doo tàmbali adde yi. doo ko tàmbalaat liggéey yi. liggéey boobu nag. nee na liggéey boobu nag. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. liggéey boobu daa demee noonu xam ne. nee liggéey bi daa demee noo xam ne. doy na waar. lool. ndax liggéey bi ci Mbàkke. ndax liggéey ba ca Mbàkke moom lay waxtaan ak yéen. liggéey ba ca Mbàkke. liggéey bi ci Mbàkke. da dañ ko jëfa door nee na dafa bëgg a taxaw liggéey bi ko sëriñ Touba jox mu liggéey bee ca Mbàkke. moom lay fàttali boppam. di leen ko fàttali yéen taalibe yi. ne liggéey bi ko Serigne Touba jox balaa defati lenn daal liggéey boobu da koo liggéey ba mu yegg. mu jébbal ko Serigne Touba boole ko addiya nee na loola ngeen bàyyi ko xel ndax moo ko fi bàyyi. waaw <laughs> muy ndigal loola. jërë ngeen tey yéen a ngi feggoog fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall euh, Touba d'Ivoire euh, ci njiital euh, Baye Mandiaye ci njiital sunu kilifa gi nga xamante ni mooy Serigne Djili Fall ibnu sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar jébbal nañ addi ji ki nga xamante ni moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñam di Fall Modou Mbenda dañuy joxaat sunu kilifa sëñ Modou xel koom war na fa yëkkati kàddu sëñ Aliou Thiam ak sëñ Baara incha allah rabbi nañuy joxaat Baye Demba moom moo tali ci liggéey bi Euh, gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi mu mel ni euh, li nga xam ne ni moom lañ moo ñu fi indi mooy muy addi ji nga xam ne moom lañ war na yët euh, Serigne Amdi Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall jébbal nañ ko ko ba ñaanal na bokki taalibe yëpp rawatina ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekk Côte d'Ivoire kenn ku ci nekk am foofu féete ci liggéey bi. muy jëwriñu Serigne Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne nii moo ko ànd ak jëwriñu daayira yi di Baye Souley Fall ca Aboba ak Serigne Ibrahima Ndiaye ak euh, Serigne Massamba Thiam maam Modou Diaw ca Treichville Serigne Papa Seck ak Serigne Samba Seck ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk foofu Serigne Ousmane Niang ak Serigne Cheikh Niang ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Koumassi sëriñ daaro Assane Ndiaye ànd kook sëriñ Ndiaw ak soxna Mati Ngom mi nga xam ne nii moo nekkal soxna yi commencé waaye di sant bu baax soxna yi nga xam ne it ñoo nekk ci Touba Treichville di soxna maam Biige ak euh, soxna Maguette Fall ak soxna Yaama Ndiaye ak mbooleem jur yi nga xëye ñoo nekk foofu ci soxna yi waaye di sant soxna yi nga xëye ñoo nekk Touba Adjamé te soxna Aram Fall jiital leen ak soxna Xadi ak soxna bëgguma faal mi nga tey jii moom moo fi teewal soxna yi yëpp di santit bu baax waa Touba yëpp gon ci njiital soxna Ndey Mbaw mi nga xam ne moom moo fa nekkal soxna yi waaye di sant bu baax soxna Ndey Faal ci Touba Abuba kon ñu jàpp ne mboolem jëwriñ yi nga xam ne niit ñoom lañ ànd ak ñoom ci liggéeyub sëriñ Touba bi tey jii ñi ngi fi di Serigne Bara Fall mi nga xam ne moom moo tey jii moo fi représenté Serigne Mountakha Mbacké ànd ko ak sëriñ Moustapha Fall jëwriñu xidmatul xadim waaye ànd ak jëwriñ ji nga xam ne da ko faa bàyyi mu yoral ko liggéey bi yorin wu sell ba li nga xam ne nii am nañ ko muy yéene ak mébét muy tabax këru Touba yëpp Touba Abobo ba ñi nga xam ne ñooy jëwriñu Touba Abobo jël ko teg ko ci loxo maam Cheikh Ibrahima Fall. moom lañ doon jottali ku tedd ki nii léegi di ñaan sunu borom defal ñu xéewal ba nu defee ni ñu ko bëggee te làq ci ngërëmal sëriñ bi ba naalaat yeneen kër yoo xam ne nii yeneen kër la doon ci yeneen commune alhamdulilahi rabil alamin di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ah ginnaaw bi ñu sante yàlla nag jul ci yonte bi di sant maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax a baax a baax a baax ndax nag si daaw yaakaar naa barkeel woon nañ ci kàddu yi muy kàddu yoo xamante nii kàddu yu tibb suñ xol la ndax ki ñuy liggéey liggéey bi moo ko jar ndax ni ma koy faral di waxee rek tey bu demee ba mën a bénéficier wu ci liggéey Serigne Touba bi ngir yàlla la ak yoonte bi ak maam Sarafal waaw ñu ànd ak liggéey bi suñuy kilifa te réewum Côte d'Ivoire tàmbalee ko ci Baye Mandiaye Baye Mandiaye Ndiaye ak sëñ Demba Faye ak yeneen bokki taalibe yi nga xamante ne nii ànd na nag ñoom liggéey bi mu di liggéey boo xamante ne nii képp ku di murit rawati nga di bay bari nga di Baye Fall dam nga ci wàllu yaatu woo xam ne da nga ko di doxal te it wax dëgg yàlla noonu lañ koy doxalee ca réewum Côte d'Ivoire waaw ginnaaw bi ñu ko ànd ak sëñ Magoumba Thiam mi nga xam ne moo fa taxawal sëñ Mountakha Mbacké mu ànd ko ak képp ku di taalibe ca réew ma loolu da ci sant bu baax a baax a baax a baax di teew fii tey di wax di seedeel sëñ bi kàddu yooyu di xamal ne waa këram ña fa nekk day yaakaar maam Cheikh Rafal jëfewul li du ndigal ndax ndigal moom uh, weesuwul suñ jëmm yi xeebu yi nga xamante ni daanaka suñu suñu feeñ yaatuwut lépp lu ñu leen sant ci liggéey ba duñ ci séntu duñ ci séntu kenn duñ ci duñ ci déglu kenn muy liggéey suñ coow bañ fa bañ bañ fa bokk di def muy màggal goo xamante ni am nañ ko ñoom ñooy sacrifice wu duñu duñu duñu duñu nelaw duñu lekk duñu naan danañ fexe ba lépp jàkk képp ku doomu aadama boo fa teewee di nga lekk di nga naan ba pare fàcc fàtte seen jëmm yi te loolu yaakaar naa ne am nga ci seede ndax da nga fay ñëw léeg-léeg waaye màggal gu gu mën a am la ñuy màggal Côte ëpp na ñaar fukki màggal par at te lépp bu bis ba jagee ñoom la te réew tamit àddee juñ fa laaj kenn du leen ca man loolu nag dañ koy sant maam Cheikh Rafal ndax yaakaar naa ne am na loo doo ko def mukk ci làmbatu kenn ku nekk boo bàyyi ba nga bàyyi ko Sénégal ñëw fa dañ la ko yaraale moo tax liggéey mbooloo jaaxalu leen àddee tamit jaaxalu leen waaw dañ ñoo leen koy bu baax a a baax a baax. di am mbégte nag mbégte rek mu rëy rek ndax ñun moom ni ñu koy waxee toujours rek ñun bokk Cheikh Ibra danañu Cheikh Ibra rek moom la ñuy waaj moom la ñuy wàllee Cheikh Ibra lépp mbégam Cheikh Ibrahima Fall mooy suñu mbég waaye tey nag bég nañ lool ndax ñii yàgg jiite liggéey bi liggéey bi yàgg nañu ci kër Cheikh waaye nag nii mu taaroo tey jii loolu gëj na daa wag ren nii mu taaroo ñu ànd ak ñi ñu bokkal di liggéey Serigne Touba ni ko suñu Aliou waxee ndax xam nañ ne boo demee ci diaspora bi kër Serigne Touba yi Baay Faal ci man ndax euh, ñëpp xam nañ ne màggal neex na lool waaye nag bu ñuy wax màggal neexaayu màggal benn yaa tax te ñii nga xam ne dañ fa nekk di dossier Ibra Faal euh, saa su nekk ni ko suñu àlli waxee duñ tàyyi duñ toqi ndax màggal yi bari nañ waaye nag duñ tàyyi duñ toqi benn yoon kon ñii nga xam ne ñoo jëwriñu Sëriñ Tuubaa yi bu Cheikh Ibra ayee ñu ànd ak ñun ci kër Cheikh Ibra dañuy am mbégte waaw am nañ mbégte moo xam ne euh, wax dëgg yàlla mel ni kayiwu ko ndax ñii nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey Sëriñ Tuubaa bi tolloog ñoom jamono ànd ak ñoom liggéey bi fu nekk ñu fekk leen fa bu ñëwee ba kër nga xam ne fu ñuy tudd mu ñoo Cheikh Ibrahima tax ñu xam ñu ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi Cheikh Fall bi bëgg nañ ñoo ngi sant baax suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy Serigne Bara nga xam ne tey mooy jëwriñu Serigne Touba ca Touba Jame ñoo ngi koy sant baax dem mbégte ci teewaayam bi di ko ñaanal suñu borom gën koo yàggal di sant Serigne Khadim seen mii nga xam ne moo yor xasida yi mooy kuréelu xasida ga euh, mu Cheikh jaral ko mu bàyyi lépp ndax xam nañ ne euh, ku ñëw fii day xat lool Sénégal daa xat waaye nag ñu bàyyi seen lépp ak sëriñ Aliou Thiam ak sëriñ Moustapha di ak sëriñ Bàcc Seck mi nga xam ne mooy jëwriñu fédération si Mourou Moustapha ak it sëriñ Mor mi nga xam ne mooy jëwriñu euh, Daaru Daaru Salaam kon waa Kër Sëriñ Tuubaa ñëpp teew nañ fi euh, Cheikh bi nag bu fekkee ne dafa aye waa sintoo Sëriñ Tuubaa ñëpp ñëw rek war nañoo mbégte wax dëgg yàlla ñun am nañ mbégte am nañ mbégte mu rëy rek ci ànd gin ànd euh, te Sëriñ Tuubaa rek tax ndax lii Sëriñ Tuubaa rek moo ko man ndax xam nañ ne bu njëkk mbooloo mi bari woon na am na doole waaye nag nii gone yi ànde moom loolu wax dëgg yàlla faal gëju na kon ñoo ngi ñaan li ngeen yéene ci Baye yëpp àndandoo liggéey Serigne Touba Cheikh na ko sëñ borom jàppandalal ci barke borom Touba ñoo ngi koy ñaan ci kër Cheikh Fall gii nga xam ne euh, Serigne Salim moo ko rëddaloon ñu ñëw sanc ko fekk fi Cheikh Ibrahima tey jii ànd fekk waa kër Serigne Touba ñëpp waa Touba Côte d'Ivoire kenn desut ndax boo tuddee jëw nañu Serigne Touba yi nekk Côte d'Ivoire yëpp teew nañ fi tey kon ñoo ngi am mbégte di sant bu baax. muy jotaay boo xam ne di jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall mu liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ko indi fii di ko jottali comme ni ñu ko baaxoor def at mu jot ah li nga xam ne rek xëy na duñ ci guddal moom lañ koy soññee mooy bu ñuy wax fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall wala ab ànd rek buñ koy wax Kodar gépp ci waa ko Cheikh Ibrahima lañ koy royee ndax ànd moom ci Baye Fall yi lañ ko njëkk gisee ba yàlla dogal ñëpp roy ci ñoom. ba fédération yi kenn ku nekk sab daayira am na fédération kon fédération maam si Ibrahima Fall ba bu nga xam ne moo njëkk a jiite boole baay Fall yi nekk Aboubok Adjamek Treichville ak fépp fu Baye Fall nekk ci biir Abidjan wala ci biir Côte d'Ivoire ñoom ñu daan ànd xew-xew bu fa am ñu teg ko ci seen loxo ñu toppatoo ko ba mu àgg yàlla dogal ànd booba ñëpp leen ci waaye ba lañ ci royee ba noppi it dafa mel ne ña leen dañoo féete kanam. ñoom ñu bëgg a nekkaat ci ginnaaw loolu na la ko waral euh, ci taarixu yoonu murit maam Cheikh Ibrahima Fall daraan boole waaye musa tàqale boole googu mu daan boole loolu ku xam taarixu yoonu murit xam nga ko kon bu fekkee ne fédération maam Cheikh Ibrahima am na ca Côte d'Ivoire xëy na boolo gi des loolu responsabilité ci ñaari côté yëpp laa ko yóbbu sëñ bi junj na ko ci biir xam naa ne am mission la mu war koo dox si ndax lépp luñ def lu may ànd defuñu la ñu war ndax ànd sëñ bee ñu ko digal waaye ni mu nekk ndigal suñ boroom jaar ci yonante bi wàcc ci sëñ bi kon bu ñëwee ci ki ñu tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall jort na ne foofa ab tàqali ko waru fa a am kon nag ba ay benn benn yoo xam ne dañoo nekk biir Côte d'Ivoire ca xëy na mu desee ànd ci fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall bi loola kon li ma tudd léegi responsabilité ñaari côté yëpp la kon loolu lañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ndax ànd bi moo ñuy jariñ fii moo ñuy jariñ fan jëm ndax ñun ñi di ay Baye Mbacke xëy na moom la ñuy wooye li julli baax baax baax ñu digal ñu ko ku ci beeru julli da nga am julli waaye ku ci julli ca mbooloo ma ah, julli ga nga julli ca mbooloo ma du yem ak ga nga beeru julli kon li nga xam ne nii eh, moom la wax ko Cheikh Rafahi Fall ca biir Côte d'Ivoire waaw ah, loolu wuluñ war a joyantiwaat la ndax fédération maam Cheikh Rafahi bi nga koy tudd tey jii ci Côte d'Ivoire moo waroon a nekk pilier boo xam ne ñëpp seen ginnaaw la ñu waroon ànd ah, ndax fédération yëpp am na fa nag waaye li ma tuddee rek moo fa jiitu mooy bu maam Cheikh Ibra Fall kon liggéey boobu ah sëñ Demba ngi fii sëñ Mandiaye nga fa ah yeneen Baye Fall yi nekk ci yeneen commune yëpp ña nga fa ah, ñu xam ne ndigal li nga xam ne sëñ bi joxe ko fii mooy na ñëpp ànd nekk benn kon man ci turu sëñ Magumba laay waxee benn boobu nanu jaral suñu bakkan ndax ndigal la ci fii la jógee te bu ko sëñ bi waxee rek sëñ Muntaxa la jógee ndax ni ko sëñ Muntaxa diglee noonu la wàcce ci sëñ bi mu wàcc ci ñun donga yi kon loolu dañ ca war a xar suñ tànk tubay lépp loo xam ne si nekkoon na ay ay ay xëy na ay réero wala ay divergence ci biir liggéey bi ñu xool nan lañ koy jéggee jàll ndax ndigal sëñ bi moom nañ ko war a jëfe ci des na ko jëfe kon loolu man du ma guddal foofu laa ciy waxe eh, xam naa dañuy soññee rek ndax ab Baye Fall moom du waare Cheikh Fall nee na Baye du waare na fexe ba ko gis waaru kon loolu ci la nekk muy eh, jëf ji nga xam ne nii indi ngeen ko fi tey di jëf ju rëy te yoonu Baye moom jëf rek ci lay dox waaye du wax eh, jëf ji nag nekk jëf ju am solo di ñaan ci kàttanu borom jaam ñi rek ñu takk laxasuwaay ngir gën a jëfaat ca kanam. waaye nag di ko sant sëñ Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne moo nga ca réew ma te xel mépp nekk fii ah, di wax ne jàmbaar la na ko ñëpp ñaanal ku am ak bëgg la jàmbaar la góor yàlla la kon na ko ñëpp ñaanal yan bi oyof ci kawam lool ah, noonu la ñuy jaaree ah, sëñ Massamba Seck sëñ mbay Mbaye am ndi ñëpp rek sëñ Xaadim dina Sey moom it wax dëgg yàlla gis na taxawaayam ndax ni nga ko waxee rek mbooloom sëñ Tuubaa ak moom menn mbooloo rek la ndax sëñ Tuubaa wax na ne ak bokk dëgg-dëgg mooy bokk sëriñ tubaa euh, bu ñu xasee bokk sëriñ Tuubaa nag yaakaar naa amul ñaar wala ñett lépp genn bokk gi la kon soññee bi loolu rek la maam Cheikh Fall daana wax naan dee yor jikkoy gaynde dee leen yor digg doomu gaynde dee leen yor jikkoy till dee leen yor jikkoy naaru góor dee leen yor jikkoy tan négg ni ku tan loolu maam Cheikh Fall daawul waxtaan bu jóg te dénk ko jaam ñi lam ca jublu woon lépp mën naa feeñ ci li ñuy waxtaanee nii ndax ñun doon fi wax lenn loo xam ne euh, Cheikh Rafal waxu ko woon wala daawu ko digle loolu nag du suñu waxi bopp kon nag képp koo xam ne Cheikh Rafal moo la ñor war ngaa tënku ca loola. li tax mu ne ab murit day yor néggandiku euh, néggandiku tan nee na tan ku gore la nee na tan muur rek lay dundee nee lu mu xiif xiif fekk yàlla joxu ko rek du jël waaw fi ne bu doon fekkee sukuraat feeg ruugi waddul du ko laal waaye nee na bu ñëwee ba xam ne ruugi wadd na du ko laal day dem wooye ay bokkam nee na bokk yi ñëwee wër ko mu ne balaa kenn jëfandikoo ne suñu kilifa jëfandiku bu rab tan ne tong ca kaw jël lam soxla mu ne kaa ñu bokk kon loolu moo kon loolu loolu lu yéeme la loolu noonu lañ war a def ndax tey kenn ku ne la nga am rek war nga ko yéene sa morom loolu loolu la fi maam Cheikh di jàngale boo amoon lenn rek muy lenn ndab ngeen xiif ne leen kaale ñu bokk kenn ku ne dugal ci loxoom kon yaakaar naa bu ñu ko defee kenn ku ne la nga yéene sa morom di nga ko sa bopp. mu ne na ngeen yor jikkoy gaynde nee na gaynde du weex ci moromam gayndeem Baay Faal du wex ci moromam Baay Faalam murit ji wax ci moromam Baay Faalam waaw nee na boo génne ci àll ba nag te till ya ak leneen bu la neexee wex kon moo tax mu ne daa leen yor jikkoy gaynde daa ne na ngeen yor. ji koy till nee till du xeeb ngeer ngeer gu mu gis fo day foog ne soccorom soxlaa a ci biir moo xam ne till goo gis day suur te day regg te day rafet nee na lu ko waral li mu ci bëgg jàngale mooy nee na taalibe bu nekk ku gis na ko jàppee sëriñam bu mu xàmmee sëriñ ak sëriñ keneen ku gis rek na soxla foog foog la mu la bëgg lépp moo nga ca kooka nee na defee rek dana am dana am ñaari ay ngërëm i ngërëm yi ngërëm yi ngërëm kon loolu la ci doon jàngale. ñu ngi ziare bu baax soxna bëgguma faal moo fi teewal soxna yi mooy nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp. di ñaanal sëñ am ni Modou Mbenda yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér. dañ ko fi fekk. di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla na ko yàlla yàggal lool. lim ko seen liggéeyal Serigne mu àggale lépp. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ci njiitalu Serigne Djily Fall mu sëñ Mour Ablaye moom mii moo fi nekkal soxna yëpp rek Côte ak li ko wër yépp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziare te gën a feddali sunu laxasaay tey xam ni yoonu yàlla rek a wóor leneen li ci des lépp caaxaan la. nañu liggéeyal yàlla te denc ci compte yi dara bu nu demee fekk ko fa ku jëful doo fekk dara yàlla nu yàlla gën a jàppale ba nu am lu ñu liggéeyale Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ba di ko indil àddiya ña fa nekk di liggéey yàlla na yàlla doxal seen liggéey ak bépp jullit te yàlla may leen wér ak kattan daraje na Muhammad jërëjëf kàddu yi am na solo lool. mbooloo mi Serigne Djili Fall nee na mi ngi sant tey ñaan rek tey ñaan sunu borom gën ñoo dimbali ni ko sëriñ Mbaye Ndaw waxe kàddu yi mat na liñ fi wax lépp rek lu baax lañ ci jublu te dugal nañu ci biir di sant rek tey ñaan ñu yàgg fee daje te yàgg liggéeyal sëriñ bi yàgg see jariñu li sëriñ Bara Fall wax léegi rek dafa wax ni booloo gi ak liggéey bi ci njabootug maam Cheikh Ibra Fall lañ ko gisee kon moom daa firi waxi maam Cheikh Ibrahima Fall boo demee waxtaanu Murid Sadiq bi nga xamante ni sëñ Mourad Laay mi meññ sëñ Jili mii moo ko bind dafa waxoon ni. toolu Serigne Touba bi may dig wi ku ma romb génn nga tool bi ku ak seegul maa nga fa waxaat ni ku bëgg li sëñ Touba am man maam Cheikh Ibrahima nii ma def ngay def Cheikh Ibrahima Fall nam def nag daa bàyyi ndeyam ak baayam bàyyi mbokkam bàyyi yenent bi bàyyi yàlla mi tax mu bind ko muy wax ju rëy waaye nag kam jox boppam daa gore muy Serigne Touba Xaadim Rasool mu boole kook yàlla ba lu mu waxee yàlla def ko boole kook yenent bi ba lu mu wax mu def ko defar ko ba mu gën ci ay mbokkam ay mbokkam ñëpp delluwaat jox ko boppam kooku mooy Serigne Touba Xaadim Rasool aji màgg ji boo koy liggéeyal dootoo bëgg sa bopp dara na la sëriñ bi gënal sa bopp la la ca gën jox ko sëriñ bi mooy xol bi jëf yi soog a ñëw kon sëriñ jiili nee na mi ngi sant rek tey gën a ñaan mbooloo mi fi daje te sëriñ Mandiaye Ndiaye jiite ko di jàmbaar ak sëñ Makumba Jaam yàgg nañ faa ñëw yàgg fekk seeni jëf buñ tuddee ñaar ñooñu yóbbaale nañ ñëpp ndax bu ñu limee dañ dul matal bëgguñoo ñàkk matal dañuy wax ni ku jiital nit buñ ko tuddee tudd ñu ko moom ña si ginnaawam lañ tudd ñu ngi sant bu baax Serigne Mbaye sant nañ baax ci waxtaan wi sëñ Moustapha mbay ñu ngi lay sant bu baax ak sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall mii sunu ginnaaw ñooy taaral liggéey bi liggéey boo ko liggéeyee ba noppi ñoom ñi nga xam ne seeni maam dafa àndoon ak Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ñoo koy couleur kon sant nañ baax sëñ Moussa dana yokk liggéey bi dana ko fulal dana taxit mbooloo mi gën a sawar kon ñu ngi leen di ñaan bu baax te dolliku ak yokkute seen barke maam nee na mi ngi sant dongo bu xeebu bii suñ xaarim Madina liggéey bii nu yaatal ñii def lu bon ñi ngi koy yaatal àdduna sépp di ko gis am ñu say yàqoo kon lu baax buñ koy jëf mas na koo yaatal warees na koo yaatal ndax kat am na jëf joo xamante ni waxuma ku si jëf ku si bët sëbët tege mën ngaa jëriñu àdduna ak alaaxira kon mooy liggéey bii. lim ciy tënk di ko dolli maam Cheikh Rahane Fall mi ci biir muy sëñam di Fall Modou Mbenda waxloo ko kenn yóbbantewu ko kenn moo ko waxal boppam. sëñ Mouhamed Abdoulaye Fall dafa wax ni ca njum gent dañ ma fee tayle muy sëriñ Touba yéen taalibe yi yéen a may yeewi li sëñ bi bëgg su amul du ma fi jóg loolu la sëñ Fall Modou Mbenda waxaat ci biir liggéey bii ko sëriñ Touba jox ñor na ko lool nee na lu fi ñëwati fa la jëm te sëñ Touba ka moom du kër Cheikh Ibra du kër kenn kër sëñ Touba la ku bëgg a liggéeyal sëriñ Touba liggéey baa ngoog ne sa ñaq dem wala sa jëf dem di sëñ Touba ñett la am borom xel yi soxla na ko borom alal yi soxla na ko borom doole yi soxla na ko te mooy liggéey bi kon nañ ci góorgóorlu ñu ngi tub bu baax xam di sant soxna yi soxna si fi teew soxna bugguma gisuñu jëmmam ñam teewal lañ gis kon ñu ngi lay jottali siyaara soxna maam Biége ak ña nga fa nekkal soxna nday Mbow soxna Yacine Mbow ak ñëpp rek ak cant ak ngërëm yu bàyyi ko sëriñ bi ñëw ci ñoom di leen xamal ni liñ bëgg danañ ko dox si buñ ko amee mu gënal ñu buñ ko amul tit day am incha allah rabbi ñu jox ko ndigalu sëriñ bi loolu rek moo ñu fa tax ñëwaat. gëj nañ fa lool waaye nag liggéeyal sëñ bi moom jaral nañu dem fu ne si àdduna bi def suñu alal jërë ngeen jëf jërëjëf nañ ñëpp talal